Free Money Mastercard disponible dans les agences et boutiques Free, mais aussi sur votre application MyFree. Avec sa carte Free Money Mastercard, des Free si ça calpe. Tous les moyens sont bons pour boire du thé Floria. Floria, Floria, Floria. fourneau jambar ak programme NDF Fonds Vert climat pour coopération allemande GIZ Royal Horizon Baobab, fil free, home. Téléphone 33 939 71 71. Adresse Route des Hôtels, Saumon dama ne télé bi ngeen doon xaar tàkk na de Leral TV 100 pour cent xibaar maa la ko wax te nag télé bi fépp la yegg ci Sénégal de décodeur TNT ba nag ñu ngi canal 33. Bravia Hôtel Ouagadougou vous aimerez déposer vos valises chez nous téléphone 00 226 25 32 97 97. Au Royal buuru Ah, les bises! Retrouvez les meilleures marques africaines sur awalibis.com. Achetez en ligne, nous livrons partout dans le monde. Laïdjara remercie ses partenaires M60, Toi et moi boutique, Batifa Couture, Baimodou HLM, votre partenaire numéro 1 en cheveux naturels. À partir de ce samedi 7 mai, votre série Impact revient tous les mardis et samedis après le JT de 20h sur la TFM et sur Marodi TV. Suivez aussi Jara tous les lundis et vendredis après le JT de 20h sur la 2 stv et sur votre chaîne YouTube Marodi TV. Marodi, inspiré par vos émotions. ba mën a nekk fii mooy kapsi xoslu feb ba tedd fii mooy kapsi kapsi kapsi kapsi kapsi kapsi welcome to my dark side teewal si kap teewal sama gox si kap bi dëkk neexee ko nandi tee ko jaay brek fii la lépp di xewee jëlal ñaar nga naan ko nga naan ma benn laa fara a naan yow tamit feebar bëgg nekk sa médecin bopp. xanaa ci ordonnance bi. jox ah. a naan benn laa lay ci ordonnance bi bu ma jox di garab sax. jàppante bu baax. ay pa. yow ak laay na ngeen ànd bu baax ngeen jàppale mbay ngeen jàppante mbay moom dof la rek mbay dof la xamul dara tubaab la ngeen di ànd ngeen jàppante ngeen ko ndax ko deful may sonu. ngeen ci sama kaula la may sonu. wax yow tamit nga tane. jàppante bu baax. d'accord merci. Yes, everything gonna feel alright. Everything gonna feel alright now. Everything gonna feel alright. No, no, I no cry. Bye. Yeah, yeah, boy.

te amul saleer amul salaire saabu bu xëy di daw dépasse suba moom ngoon guddeeg bëccëg mu feebar tëdd ne yow de boo gisee ma yéeg fii ci kaw di wax yoo xam nga ne jaaxle ma tax a yéeg jaaxle ma tax a yéeg li ma yoroon yëpp jënd naa ko te ba tey demaguma marché. mais yaay booy danga ma bett nit lu ko bett man ko dépense bi daf ma man présentement boo mu ko waxoon peut-être quarante-huit heures vingt-quatre heures en

ba tay taalagu ma dépasse amul ci kër gi. yore bu dee man ak man dong tay do boros. yaay xam nga rek man tay xam nga rek paas taxi ñoo ma xaw a sonal yaa gis chaque jour gars dañ may woo revendication si dëkk bi problème yi ma war régler cause droite et tout ça jéemal xol mbay bu fekkee yoon xam jox la en tan ñu dépanné wu. mais mais laay yow si nga ma fang topé nga ma mboro mais laay lutax nga tek ma bët L'activiste qui parvient même pas à s'activer pour sa famille. Mais quand il s'agit de parler de Mbaye, tu es le premier à ouvrir ta grande gueule. Mais ferme ta caboche. Yo, xolo gisuma la sax ba jël tek beut. Hein? Mais yaay qui comme locataire ci kër gi quoi. Ki amul ben jom. Man mako def sax mu mbiri wax ak mom ko may buzz. Man buzz de mu comme naturellement. Yalla mo def lolu. Eh. Ciow li na dag. Li ngeen tal talumako. Ak lo leen di mën di régler rek na doon ci suuf. Yeen ak may dégg. Lo leen mën di régler rek na doon ci suuf. Yeen ko tal. Yeah. 5000 la ngi ni mom la dencoon ci biir am jël ko nga dem marché ñu bayyi ciow li. ay xol ndey tel sa 5000 mille nga oh tel sa 5000 li problème goor la ah nga. lay sama yaay bu len yaakaré pour ngeen régler problème bi yaak mbay té mënu len ko régler ak man ma def ko ana différence xana duñu ben xol moy différence bi man goor la duma ma nangu di yeewu si benn kër jigen di ma yor xam nga man sama dérange yew ci kër ay jigen di ma yor.

man damay en loo leen dimandi def rek na gaaw. jàppoo leen ko nii rek ngeen mel ni mais Ndeye il faut pas en abuser également hein..! tu exagères. mais yow tu ngay def ko wax wax wax rek waj waj waj waj. oui moi.. ça me change du monsieur ça va. hey moi je suis pas ton subalterne je hein. je reçois pas des ordres venant de toi que ça soit très clair et que ça saute je t'attends.

Nasıl? da. day def ci li nga mu Casamance yi bu saf bi mooy bi ñuy pàccal noonu. d'accord. defal nga soosu kaani. waaw kaani pëndax laa defar de mais dina saf xam nga boo feebaree si gémmiñ day lawet mais kaani bi saf na. waaw def nga ci ñeexu màdd mi rek. màdd ak dama xale yi léegi dañ ko ci def pour mu gën a saf ñu ko mag waaw sa bu wow bi laa jënd de bu weex bi boobu tam forox na de ah da nga koy limité sa bi da nga koy limité rek waaw ah. di dimbali ma ngir yàlla ñeex mi bu mu dëgër def ko ñeex mu nooy ñeex mi na nooy dégg nga dinaa ko yolomal on moom mis naa dama daa tàmm naa ko ba noppi waaye ñeex mi moom bu yolomee rek dina baax bëgguma bu dëgër bu far bëgguma ñeex bu far de d'accord Hassa. am nga pataas. waaw jënd naa pataas. pataas mère neex de moo saf bu xonk bi waaw pataas bu xonk bi bi mère di jaay. waaw boobu laa ci jënd. saf na suukar. Ndeye. naam. kañ nga may dimbali ngir yàlla ak bi doo defal ma cu changé ma tuuti def cu. semaine prochaine. wax ma ko. so rek dama ñaar cóob ak doomu daay yëpp xonk semaine prochaine incha allah ma toggal na ko dégg nga T'as déjà réfléchi à une stratégie Quel est ton plan d'action mais Mbaye doo may ma réfléchir tuuti wala nga yaakaar damay jékki-jékki la tëb di wax nii di wax ni, sans réfléchir hein? boy man j'ai pas d'autre à qui tu es venant de toi hein? tu te prends pour un commandant ou quoi

nga wut journalier chantier boo dem nag bul fa nekk di làkk ay tubaab waaw reste simple wan job ngay wut et tout ça. yow nag man maa ngi jaani dem dugg HLM. yaay cum pompelaire li jëm ci sa bopp ma li jëm sa bopp. on se donne rendez-vous gàlle 18h. gaawal gaawal boobu léegi yaa ngi xool jëlal kii bi nga fëgg bagage yi rangé mu gaaw gaawal gaaw.

dañuy soxla manœuvre fii quoi amul benn problème. Ça Qui dérange pas, j'espère Non, du tout. Tu peux la nettoyer vite fait, hein Vous pensez la finir avant que je ne termine hein? Ah oui, nettoie ma flash. Comme ça. Je ne compte pas m'éterniser ici. Hein. Vas en rassurer. Bah, faites-vous plaisir alors. Bon, fille, vous avez ànd ak euh, boy bi mu yóbbu ci ginnaaw ngeen jël carton yi andi ko fi placer ko ci boutique bi ñëwaat bu loolu jeexee ngeen fëgg bagage yi xaar client yi ñu ñëw ngeen wax ak ñom ba ngoon jot après ñu jox la 5000 quoi. 5000 hein? ah. ok on peut vraiment mën naa mën naa commencer hein. amul ben problème eh boy bayil demal ngeen jëli carton yi demal nga wan amul ben problème copain. ok allez-y amul ben problème. Filou-Lèche. Et... Eh, oui. Agnès, ça va? La loi des filles? regarde d'accord. D'accord, hein? Ouais, d'accord, demande marché. Mais tantôt, on m'a l'œil des filles? Non, dans la fille, place, mais ça me donne un copain, moi, comme moi, je me suis dit, je me suis dit, pourquoi pas, moi, découvrir le métier manœuvre, quoi? Parce que c'est un métier à saluer, hein? Je me suis profité de l'occasion pour venir découvrir. Comment je me suis découverte?

eh grand laay bi joxe naa ko ah. gis naa loolu. mais ah ñaata lay jar. bon yooyu 7000 lay jar nag. 7000 7000 lay jar ah. kon maa la jox 2000 ah. waaw yaa may jox 2000. monsieur, vous êtes là Oui. Voilà, c'est nickel de chez nickel, hein Pas mal. Tenez, il y a 1000 francs ici. Euh, tout simplement Ça fait même pas 2 euros Pour un laveur clandestin, comme vous, vous osez demander plus. Yara, laveur clandestin Mais purée de patates, hein Il fait même pas 2 euros, hein Mais du n'importe quoi Ça, c'est pas du travail, c'est de l'esclavage, ça Mais bon, je vais me contenter de ça Même pas 2 euros Hello, everybody. Hey, my lovely sister. You good now, like this? I mean, I'm not. My eyes are jam. Lep nice. Kii sama frère la sama lépp la Lino Mom mo ngi jógee Las Vegas waaw ñoo fa nekkandoo woon xam na waaw Ki moy sama jarbat préféré hein. Ah. Mom mom foko fekk loxo baangi ni ci kaw Ça va mais sister Luno dafa yëg si Sénégal ne man li mu gën a nam mooy domoda ma ne ko mais mooy plat national kër gi ah non mais Luno sur sept jours si si domoda lañ fiy togg ah peut-être parfois dimanche ñu togg sombi ah <laughs> loo def nag dalal ak jàmm jërëjëf ak si nga yaa ngi sa biir kër jërëjëf c'est ça jërëjëf mais siste euh, ñu euh, ñulug nga ñànk tàng waaw ah, ok <laughs> voilà exactement yi ana Padiara. mu ngi ci biir. mais dama ko kii cappi dafa xaw a feebar. oh si kii ko dafa xaw a tawat. ah ok ok ok xam naa ni doxum si TV ah <laughs> ok. excellent TV. thank you hey Lino. yeah bro. welcome. asalaamaaleykum. Wa alaikum salam salam. sëriñ bi mën naa waaw nga tok. merci merci. mais ah. tangor bi metina. ah tàngaay bi yaa gis de. mais ak tangor bu ah tàng na de. Oh. tu sais li en France on l'appelle canicule. ah. non li du balal tubaab bi surtout màggetu tubaab bi rey comme weñ. rey. mais dafa métti. ah tubaab gaaw de. c'est terrible ah buute nañoo ñun dé. ñun de moom xamna naa xam der bi tax. toi tu vends des magazines de la France. oui ici c'est Paris bi nii. oh là là. Ah, mais jaay ma bobo, jaay ma ko. ah bii moom bi bii moom xaw fi yag bi moom jaayul moom. bon à défaut est-ce que mën naa ko am en location juste le temps de lire des lolo ko. Wa ba légui ba légui mën la. defal moyen na combien. moins de 500. xool oh là là.

daje bés ak say sëtaati sët nanu tànn sunu ëllëg xalaat sunuy doom waaw yaay foo toll fa nga nekk yaay maa ngi lijjanti defal nank nag maa ngi koy lijjanti oncle Sam moo fi ñëw ànd ak benn xaritam nee na dañoo ñëw pour añ si ok waaw léegi xaaral ma dem lebal ma nga ne non yaay xoolal bu def loolu de non bu laaj oncle Sam dara ñu xamal yooyu te yenn yi tamit waaw discrétion quand même maman yow tamit nag. waaw oh, dafa nekk dans une heure de temps ko. boo ñëwee ah bu laaj. ay oncle Sam ay affaire ku la bàyyi nga nekk fii di faire genre dina cinq mille bi nga dem marché. nga ndugg ma daal di ñew taal añ bi gan yaangi tok ci saal bi ñu xaar. dum ko jël comme lay dem na neena na lijjanti ji na nañ toog xaar ko. wa man damay bëgg jommi wala lan yaay bu fekke laay jëlee dara liggéey est-ce que ko wax nañ ko waxtaanee. Hmm? liggéey sax comme dem na rek nañ ko xaar. yaay gis nga kër gi lu metti lu nekk dund nañ ko fi mais depp ci. dëpp ci yaay mosu fi am te man gàcce boobu duma ko fi xaar de duma ko xaar nag

mais mais sister sister. waaw Sam. waaw mais yàpp xaj bu soofee sedd tamit. Eh, bu seddee soof. that's the same mais waxtu añ jot na quand waa waaw fu ne de mën ngeen a génn pare naa moom. ah mais alhamdulilah. ah euh, mère Awa. mère Awa. jarawa yow kañ ngay nekk naan te yow tamit. gan privé boo ko amee ci salle privée nga war a añee. waaye jara fii gën a yaatu. mère mère Awa defal li ma la wax. gan privé añ privé salle privée c'est tout. you know. yeah bro. your domina is loading. really. yeah. damn that funny. Ça yi bëgg na dama naa mais euh boy jàppal ne tey di nga laal domoda bo xam ne mosoo laal. donc good. domoda de haut niveau tay ngay laal tay. good bu toj fi góor ñi sax dañuy togg domoda góor ñi. Ah, kër gi mom xaw ban problème ñu am mais du problème mu domoda. mais fi la gis kër gi dañuy añee domoda réere domoda. bo moytu sax ñun dékk I'm sorry. Alhamdulillah. But uh, eh, uh, eh, ah, how are you? Las Vegas. Yeah. <laughs> Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas. I guess. Yeah, I guess. Yeah, I guess. juróomi mu téeméeri gi nii não. Eh? jéem a xool loolu. ay booy j'ai não. bii pour la wax. jàmbaar ngeen de. merci merci. não. naa sax xanaa dinaa não mën a não. reer. ah bien sûr. dina baax yéen não. doon não. sax pour yekk añ bi ñu añ. jëla daal não. toog leen may jëla daal jëla. booy je te cause pas ah. joxe 1500 ans jëla daal. mais je te cause pas j'ai dit. je cause à yaaya booy. mais a da nga indiscipliné ah. da nga war a def indiscipline tuuti a itam.

mais ba kontaan nga. si jara ah, ah, ah, ah oui. gis na li anglais di wax full. ah kon full nga. am very full. non nice mais xam nga bëgg dama bëgg sax li noo ñëw mos seen fiiriir non mais je te jure fiiru kër bis boo ko oh, wonderful. non bàyyi. bis boo ñamee fiiriir bi bàyyi dama daal. one day one day incha allah. gën a garaaw laa lay wax. mais tey ñun fiiriir dañ programme reer. mais mais pourquoi yéen du ngeen toog ñu reer ba pare ngeen soog dem mais defu leen mais bul worry one day incha allah obligation la. Hmm. just that I have a meeting. waaw moom moom jot la du am ci. léeg-léeg sax dañ am ay quelques problèmes rek mais kër Paa Jara moom problème ay détails la quoi bàyyi ko. Euh, euh, euh, Lino. Mhm. let's go ah. <laughs> <laughs> am problème. firi bi nag bu mu nekk yaboy dégg nga. oh. ay ten tak. rada fokkin moo ne. it's good. Oncle Sam, on peut parler. Écoute, ah, Sam, écoute. Jara? Rad the fucking morning. mi ngi nii booy dem ko ndox mu bu yàgg dara mais lui non ce sont mes jarbaat hein? ok oui. hello. Ki moi la jar? He's a very good citizen Mom day faytal askan bi. yaa mais am na ñoo xam ne suñuy Pour xaru. passe paasuñu jom dafa gontu ñom ñu xey. mais Sam toi tu fais allusion à moi. Euh, mais garouale. Ah, I, don't know. Mais.. garce saga. Mais I didn't have a time. Madame Aleko Domoda Je a A very good Domda. Oh, ah, yeah. You know, let's go. Mais Mais.. what, what, happened? Hein? oh my God. Hey, you don't speak good English. Shut your mouth. Hey, shut up, mouth, hein? You know? Sénégal, les mots Il y a quoi, hein? ils ne ce comme comme ça def dara merci merci merci merci mais c'est quoi ça mais s'il disait merci ça aurait été l'idéal mais même pas le petit mot merci de jërëjëf. En France, par exemple, les, petits dès le bas âge, on les inclut à dire merci maman, merci papa et merci c'est ce qui te retourne de la table. Ce qui est normal hein, avant de quitter la table. Hein. mais, le, le là, il est bon, ma Yaya Boy. Ah. Mais pourquoi il est sous-côté à ce point Bon, peut-être le nom n'est pas aussi charmant et tchéti, mais pourquoi pas le riz blanc avec euh, la sauce rouge <laughs> Ça serait l'idéal. Mais bon, non, Mais what you quoi Ni la fille France, ni le riz blanc, riz, riz rouge, le goût de Hein Les gars, non, pas. Ah non, non, ouais, jamais. Ah, regardez. Mais Yaya Boy, comment va Ima Il est autour du.

parce que dama laal seen xol yi ci suba ngeen xëy dugg ci dëkk bi dunduñu lu ne ngeen uti ko ñëw joxe dépense moo tax tey ngeen nangoo toog pour lekk domodaa kenn ngeen ko mos a lekk mosu leen a nangoo lekk domodaa tey ngeen mën a toog tey respecté ñam xam lan mooy valeur u lekk bay xool nday mu tuur ak nday mu tuuru lekk et eh, pourtant li ngeen daj tey ba ngeen juddoo ba léegi man loolu laay daj 365 jours amul benn jour bu may tëdd di noppaliku chaque jour lii laay daj kon yéen defu leen dina jàpp xam ngeen li xew ma xamal leen benn affaire nag muy lu leer gis nga Paa Jara lu wokkul dërëm wokk ko dërëm jotuma maa leen gën a wér fuuf man maa doon xool man ak mère Jara ba xam bis bu dikkee Paa Jara tëdd yéen bu boobaa naka ngeen di doxalee kër gi gis ngeen lii ngeen démarré na ngeen xam ne dootul taxaw lii mooy continuer parce que Paa Jara nekkul di dund continuer bis dina ñew pa jara tok ben place dootul mën a yëngu toti su boba luy xew wala bis ñew du ngeen gisati pa jara est ce bobu da ngeen di xaar ku len yor wala yeen yeena wara yor seen bop ci ma gëna bet nak yaw lay moy yaw activiste bi ngay wote ci mbedd mi di toj dekk bi day xex ñu na laay jara laay jara soxla wuñ ko ci mbedd mi ci kër gi lañ ko soxla un vrai activiste fi nga koy démarrer ci kër gi xex pour indi ciép xex indi diwlin xex fay ndox xex fay courant xex dimbali sa nday dimbali sa bay lolou fi lañ ko soxlaa ci kër gi mais pas ci mbedd bi légui nak lu xew. père li nga wax yeb deug la avec gor do ko sox bum bum bu sës quand même xam nga waaw loolu glace xam nga ni seyna bu yag am gis dama mu gélé gélé chez de est ce que xam nga yow su fekkoon ne toq jom dess na ci sa yaram bi di dox. da warna waroon a dee fii nga toog ñu suul la yow dund. je vais je vais pas je vais pas mourir comme ça hein. le peuple a besoin de moi. Ah, ah. kon di taxoon nga bañ a jël 5000 bi ci suba ba tey lii moo tax ci suba ba tey ma lay forcer 5000 bi nga bañ ko jël. Sophie. Pourquoi tu me regardes comme ça Mais je te vois même pas. Tout ça, c'est de ta faute. Tu es parti en France, l'as fait comme ça. Et moi Ouais. Et toi, qu'est-ce que t'as foutu à Putain, tu n'as rien fait. Mais qu'est-ce que t'as foutu de moi en Oussoui Va là-bas Laisse-le dans ma gare Va y dans ma gare Là, là, tu vas y voir lui Là, il va